mooy ñaan yàlla mi nga xamante ne dara teew ko mu may la gu yaram gu sax gu guddal fan yi lool ba li nga xamante ne suma nga ko nga eggale ko ak jàmm ci alhamdulilah rabil alamin ndax xam nañu ne ci bismillahi rahmaani rahim nga ko